mimi ndeysaan mi ngi ni jekk muuraay jekk tagal barke rasulullaay nee na président Macky Sall doo dégg mukk ci jamono ji waa PDS di ko ŋàññi te nee na ñu ngi ci waxtaan waxtaan wu xóot a xóot wu yàgg yàgg te bul fàtte ne xam na leen ndax yàgg na ci gouvernement bu président Macky Sall. Assane. Mimi Touré daal li mu war a def mooy. Hmm. mu dem ci terrain bi waxtaan ak askan bi luy tax askan wi gëm ko wala luy tax askan wi doyloo ko. Hmm. wala luy tax askan wi def ko seeni xol. waaw waaye yii muy wax yëpp par man amul solo ndax Mimi Touré man fa ma teg président Macky Sall rek laa ko teg. lii loolu. maanaam damaa jàpp ni lépp fépp fu réew mi toll loxo Mimi Touré la 2012 ba léegi nii mu ànd ak président Macky Sall bu réew mi jagee loxoom la bu réew mi jagadee loxoom. déedéet asal loolu dafa yomb. yombul de. déedéet. ma ni la yombul son yi Mimi Touré nag opposition bi rawatina waa yeewi askan wi waa PDS ak waa gëm sa bopp ak ñëpp ak ñoom waa PEP Jaab dañoo war wax ni ko Mimi Touré awal sa yoonu bopp nga dem. ndax lu leen dal lu réew mi politique bi jaxasoo ni ñii jàpp ak ay nang lim jaxasoo na jàpp bu bari bi yëpp lim génn ci yéen moo leen du loolu de mbeddum jàppaate bii Mimi Touré ñu si sol ñuy jàpp ni ku sëqat ñu jàpp la ay ñoom Pam Ndiaye ñoom Pape Alé kan la fi Mimi jàpp nga ni kan la fi jàpp bi mu fi toogee jàpp rek la daan def nga naan kan la bëri na agit ki mu fi jàpp ndax dañ koo jàpp ba ci biir ñu xool ni du alalu Sénégal la jëloon wala waaye neema neema léegi li ma ñaar ñu fi jàppoon jàpp ñu Karim Wade ko jàppee woon dañ ñu askan wi jël ak kan jàpp ñu Khalifa Sall ñu ne dafa lan nee alalu askan wi ah mais kon kay jeex jàpp ñu Aïda Ndiongue waaw léegi ñu ne nee ñu alalu léegi moom kon kon léegi non léegi yow yaa war a àtte léegi lu tax ñuy wax man mi jàpp sàcc warumaa jàpp te kii àtte bàyyi sàcc bi moom mooy àtte moom mooy àtte non non non non non non non Mimi Touré moo doon àtte mu naax naan kii dama koy jàpp kii dama koy woolu ba si sëriñam da ko woolu woon Omar Sarr moom sëriñam waaw da ko woolu woon Omar Sarr da ko woolu woon kee Ousmane Ngom ñu fekk ko salle de bain taxañ ko teg ko si hélicoptère indi ñu naan oh xaalis bi dana génn booba lañ si gëj a wax xaalis génn amul benn ñaar fukk yu Mimi Touré ni lii maa ko nangoo si doo wax ci li mu wax nan loola la war a lijjanti ji jéggulu askan bi ba pare doog a dem di wax lee PDS waruñu ko mën a xajoo ndax bu bu bu politique bi yàqoo ñu jàpp nit ñi di tëj Mimi Touré ñu sol si mbedd moom kon na fexe ñu bàyyi tëj gi moom insistance moom bu mu si wax mukk si àddina hmm. moo ñu ko teg di nangu otoy gaa yeeg lu ne mu si yow xanaa seen oto sëriñ bi ñu nangoon nga ngay yow Assane dafa mel ni seen oto sëriñ bi sëriñ bi de ba mu ko nangoo sëriñ ba yam amaata gën fuuf ndax ya gën a bakkane la am lañ ko gaay jëndal yu baax a baax a baax ñu nga gaare waaw hmm. ba pare mu nekk fi naa si sax nangam nangam mi mi kay na dem waxtaan ak askan rek lu ñu ko gëmee jërëjëf alaaji euh, mii de wax na ndax ay xabaar la joxe moom tamit wala da nga jàpp ni tamit dafay cokkaas ba léegi waa xam nga waxtaanu président Macky Sall hmm. ak eh, Ablaye Wade wax ci soreek gàtt man jàpp ma ni bari na njariñ ci réew mi seenam njariñ la rek ñoom ñooñu te Ablaye Wade ñëw fi 2019 boycotté waaw élection yi mujjul fenn waaw xam nga diggante 2019 ak léegi voilà yéen nag eh, réew mi daf fee dox mentalité yi gën fee développé que ni Ablaye ak Ablaye Wade di waxtaan ak Macky man gisuma njariñ loo xam ni moom la koy moom lay jariñ sax PDS parce que jàpp naa ni loolu euh, même bu amee sax baaxut ci ñoom waa PDS. Hmm. àndandoo waaw parce que di waxtaan ak Macky Sall man jàpp naa ni baaxut ci ñoom <laughs> waaw léegi nag bu dee ñi ngi waxtaan euh, nañ continuer seen waxtaan xam nga àddina bi son hmm. dafa am lu bari loo xamante ni bi mooy li am solo gis nga saa yi. Hmm. Euh, gis nga li booy di wax naan focus deux mille vingt quatre. waaw seen yoon ci lu leen di distraire ak fu ñu leen di def ay kiiw ak ñuy xalaat ci leneen ak leen mais ñu ne lii mooy sunu objectif. Hmm. dara duñu ci loolu. Hmm. loolu mooy li am solo gis nga tey ji hmm. euh, gis nga ay gaynde kii bu ñuy rëbb. Euh, nga defe ne dañuy jiixi jaax dañuy cibler benn dañuy xool maanaam li ñu bëgg a rëbb bu dee ay kéwél. dañuy seetlu ban moo ci blessé ban moo ci kii ban moo ci laa ban moo ci kii comprendre nga. Mhm. ba observer benn ba ne bii la boobu mooy seen objectif. Mhm. gis nga yeneen yi même bu leen gënee jege duñu ko faale bi nga xam ni mooy seen objectif ci boobu rek la ñuy wutali nga xam ni dañuy xam ni lii moom du rëcc. yaa ngi dégg. Mhm. gis nga bu ñu demee ba ci yàgg naan ah teemaate xool bee jékki-jékki ne teemaa xool bële. finalement léppay tasaaroo. gis nga lu foofu nag. fa la booy nekk fi mu toll nii. Hmm. xam nga ñoom man dama jàpp ni politiciens yi gis nga actuellement son yi. population bi dañ leen a gën a yeewu téeméeri junni yoon maanaam dañoo ne ci ay théâtre population bi ñoom nekkuñu théâtre maanaam ci. dëgg la ci kii la ñekk quoi maanaam dañoo nekk ci nekkuñu ci caaxaan quoi. waaw mais nga baal ma ñoom nag ñuy théâtre mais nga baal ma est suñu maam suñu maam Ablaye Wade mii moo nekk ci théâtre parce que Alaaji. Ablaye non c'est Ablaye dafa yàgg a bind ay film. waaw non xaaral waa Alaaji il faut man la ñëw élection 2012 daan ni. Mm. lakk leen électeurs yi mm-hmm. loolu man laa mënta comprendre ba léegi depuis te Ablaye boobu àndoon ak Idriss gis nga di Kenya wala wala wala wala mm-hmm. Sonko mm-hmm. président Macky Sall du dem sax deuxième tour. waaw gis nga lool di ko jéem a lijjanti day lëjal du ko lijjanti da nga koy bàyyi mu ne nee na woon lakk leen def leen lii nit ñi ñi defoon lii def lañ lii kii am na ñeneen ñoo xam ne bii loolu indi na ay jiixi jaaxa ba tax ñu am na ñu doxalee. Hmm. ñooñu ñëpp tey pare nañ ci mbir moom gis nga léegi sooy bu gars yi faale gis nga Abdoulaye Wade yi ñëw naan nañ def nii ak nañ kii ñu ngi waxtaan fii ak ñi kii jékki-jékki wane naan ñeenti oto dugg si nag Karim dugal na ay oto. ñu bëgg koo def débat gis nga yooyu du débat yooyu na tegu fële nit ñi. Ah, nekk du débat PDS mi ngi ñëw mi ngi dugg si Karim Wade yi. PDS am solo. comme fii si Dakar ak Sénégal 14 régions yi foo dem. ngeen di gis PDS amal benn yëngu-yëngu fii ci Dakar barki démb rek gis naa leen. fan la maa leen topp de leen topp. fan si réew mi. waaw dama ni fan. fan. Hmm? fan fépp. man PDS kenn képp laa ci mu yoo wax mooy maa ngi koy nuyu. Hmm. à part Gallo Mor kay Mor Kanit kay mi ngi. kuy Mor Kan mi ngi fi. man PDS Gallo laa fay dégg muy wax. ñu bëri ñu ngi si gars yi gars yi ñoo ngi si. man Gallo xamul lu mu fay def surtout waa Touba ji waa Touba ji. Gallo na dem ñu ngi am solo. na dem ci Pape Djibril wala mu dem ci Bougane wala mu dem ci. kii ñee ñooy ñëw ci ñoom. PDS parti bu mag la te allah allahu bi à bientôt nga xam ne parti bu mag la. Hmm. waaw. déedéet Assane xamul foo bokk. <laughs> ñu gën a néew doole rek. <laughs> gën a néew doole. Eh, jërëjëf. xas na xas na PDS de. nee na ku gën a néew eh, doole bu ma bokk laax bu ma ku gën a néew maa ngi xool ku si gën a néew doole eh, naa dem. bokki foofu waaw foofu waaye fi mu nii bokk gu ma fenn.